asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa ñu ngi siyaara tey nuyu mbokki réew mi yépp mm-hmm. di nuyu mbokki jullit yëpp. Mm-hmm. di nuyu mbokki taalibe murid yëpp. Mm-hmm. di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké. mi nga xamante ne nii moo toog toogaayu Serigne Touba. di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér. ba yéene yim am ci liggéeyal lislaam liggéeyal ko yoon wi suñu borom may ko tal ak fekkee ba mottali ko ci sagoom ànd ko mboolem kilifa yi diine yi nga xamante ne ni ñu ngi ci biir réew mi yilif ay tariixa yilif ay njaboot ñoom ñëpp yàlla neen suñu borom may tal ak fekkee ba yéene yi ñu am ñu mottali ko mm-hmm. di beral nuyoo boppam tamit sëriñ Cheikh mbakkee moom sëriñ saaliw mi nga xamante ne nii moo toogee jataayab sëriñ Saliou Mbacke te mat ko sëkk moom tamit di ko ñaanal suñu borom may ko fan wu gudd wu ànd ak wér gi yaram yéen a yim am ci liggéeyal sëriñ bi suñu borom may ko sago may ko tal ba mu mottali ko ci ni mu ko bëggee te ñu ànd kook moom dagg ca ngërëmul sëriñ bi dellu si tey jii nag li waral waxtaan wi mooy fàttaliku jàmbaar ju tedd fàttaliku kilifa gu baax te lawet fàttaliku wayjur fàttaliku sëriñ waaye ñu bari ci ñun tamit mën nañ ne fàttaliku maam ndax taxawaay bu nekk ci yooyu ma lim taxaw na ko ci njaboot gi ñu daje fii tey ci suñu kër mbokkum taalibe muy sëriñ Moustapha Diop nekkoon ci daara yi sëriñ Saaliwu Mbàkke nekkoon ci jàng alxuraan wu ba wàcc tey ak ay kilifa yu tedd ngir waxtaanee jëmm ngi tedd jooju fàttaliku ko ci bis bi nga xamante ne nii ñenn ñi ñi dëkk ci réew mi dañoo taamu bis boobu ngir di ko fàttaliku muy le 28 décembre ci weeru tubaab waxtaan wi nag ay kilifa yu tedd teew fi ay kilifa yu baax ñëpp tamit doon njabootu Serigne Saliou Mbacké ay kilifa yu tedd tamit ñu xam Serigne Saliou yàgg ak moom yàgg koo bëccëgal yàgg koo guddil yàgg koo liggéeyal ci liggéey bi nga xamante ne nii moom liggéeyal Serigne Touba ñu doon ko ci gunge ñoom ñoo ñu ko fa yéenee defal. Mm. sëriñ Maxtaar Kebe mi nga xamante ne nii mooy def waxtaan wi ab jàngalekat la ab yarkat la waaye jàngalekat gi mu doon lam xam ba koy jàngale ci sëriñ Saaliwu Mbàkke la ko jànge fa la ko xame yarkat bi mu doon tamit yar bi nga xamante ne nii mi ngi koy def ci ñi muy jàngal ay jikko yu sel ak ay jikko yu baax fa ko jële tamit mooy Serigne Saliou Mbacké kon bu teewee di ñu waxtaanal ci Serigne Saliou dina yay te dina yell te jàpp nañ ne danañ ci jël ay njariñ yoo xamante ne nii danay amal njariñ taalibe yi amal njariñ réew mi Serigne Habibou Diop nga xamante ne nii kenn ku nekk xam na ko ci Serigne Saliou yoroon daaray got muy daara ju yàgg ci sëriñ bi liggéeyal fa sëriñ bi liggéey boo xamante ne nii liggéey bu sëriñ bi gërëm la ba sëriñ bi gërëm ko indi ko Touba ne ko man liggéeyal ca got nga jege si fii di ma ko liggéeyal ci sama daara ji di ma jiiteel sama jumaa ji loolu nag li ko jublu mooy di ko barkeeloo ca sa way jur wu tedd wa Cheikh Amin Diop Dagana nekkan gi mu nekkan ci wetu sëriñ Touba di ko liggéeyal loolu laa bëgg fas yéene barkeeloo it kii ngay wéyal liggéey boobu moom tamit bu sëñ maxtar waxtaanee moom dana ci jël jàngat waxtaan sëñ maxtar bi xam naa ne moom tamit njàngat moom ciy def dana doon loo xam ne dana jëriñ waa réew mi dina jëriñ tamit taalibe yi ay kilifa yu tet tamit teewe ko sëriñ Koso Mbakke nga xamante ne nii moom tamit ci daara sëriñ Saaliw la nekk sëriñ Saaliw yar ko mu yàgg moom ginnaaw bi tamit ba mu jógee ki daara gi tamit ci kër sëriñ bi nekkoon ko jaxasoog sëriñ bi moom teew na ci jataay bi sëriñ Saliou Mbacke moom sëñ Mbacke soxna loo kenn ku ne xam ne moom tamit ni demee ci kër sëriñ Saliou moom tamit teewee na jataay bi sëriñ Hamsatu Silla ku yàgg ak sëriñ bi yoroon daara yi sëriñ bi jànnatul mahwa yoroon ko fa tamit ay liggéey yu bari dooroon ko jaxasoog sëriñ bi tamit di doom yi bàyyi sëriñ Sylla di sëtu sëñ Cumbuleen moom tamit teew na ci jataay bi mi ngi den ak sëriñ Omar Gueye sëriñ Omar nag ñu naan ko minicar lañ gën a xam moom tamit nekkoon ci loxoy sëriñ Saliou ñëpp xam ko ci kër sëñ Saliou ba turu Omar Gueye sax ñu bari xamuñ ko turu bi nga sëñ Saliou tudde woon muy minicar ak turu woowu moo barkeel ba turu woowu la ñëpp xam moom tamit mi ngi ci gataay bi sëriñ Abdou Salaam Lo di sët sëñ Maxtaar Binta Lo moom tamit mu ngi ci gataay bi sëñ Maxtaar Binta Lo ak sëriñ Touba kenn ku ne xam na seen diggante sëñ Abdou njaay di jëwriñ ci dongay tarbiya yi di am liggéey bu am solo bi mu yore ci wàllu tool yi ak wàllu taxawaay yi te sëñ Cheikhoum sëñ Saliou dénk ko ko moom tamit ñëw na ci jataay bi moom tamit teew na kon boog ñi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci seen teewaay yu rafet yooyu di sëriñ Mbacke Diop moom tamit di doomi sëñ Mourtala Diop di sëtub sëñ Matar Diop eh, Ndumbe moom tamit mook sëñ Moustapha ñu bokk wenn waajur moom tamit teew na ki jataay bi kon boog yaakaar naa ne sëñ Makhtar mën nañ laa jox kàddu gi di la siyaara di la bégee mm-hmm. Mm-hmm. ci teewaay bi fas yéene tamit teewlu déglu la taataan ci yow loo xamante ni danañu mën a jariñ ci suñu jàmbaar jooju incha allah kon sëñ maxtaa daal ci mm-hmm. liñ bëgg xam daal ci mm-hmm. thème bu njëkk bi waxtaanu njëkk bi mm-hmm. sëñ Saliou Mbacké xam gi nga xamante ni nii waa réew mi war nañ koo xam kan la ngir ñu jariñu ci moom njariñ loo xamante ne nii dina jariñ réew mi yëpp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 jàmbaar gi naw jëf la su ko defee bu ñu nee jàmbaar ja rek nañ xam ne waxuñu juddu ba waxuñu askan wa jëf jaa tax muy Cheikh Saalihu Mbakke radiyallahu anhu waa réew mi war koo xam nag bu ko waa réew mi waree xam nañ xam ab yarkat ndax nañ xam ne li gën a tedd ci métier yi mooy métieram yar ci yar la yàlla suñu borom yabale yonent yëpp pour ñu nekk ay jàngalekat nekk ay yarekat moom la arab tuddee ashraful mihan mbole métier yi métier mi ci gën a tedd mooy métier mi ci ëpp njariñ te bu njariñ la ñëwee matale bañ a bàyyi kenn loolu mooy al murabbi mu murabbi moom nag métier mooy at tarbiya mooy yare danañ ñëw ci tomb par tomb ci taarif luxawi bi ak istilaaxaat yi nga xam ne boroom xam-xam yi indi nañ ko ci Cheikh Saalihu Mbàkke moomu nag di doomi Sëriñ Tuubaa nga xam ne ganiyun ani taarif Sëriñ Tuubaa moom boo ko waxee nopp yëpp daañu xam ne mosuñoo dégg boobu baat soo génnee woon photom bi di ko wane it nit ku mel noonu amul donte ab malien nga wala ngay ab burkinabé it buñ la wanee photo yëpp da nga ci d'accord mais buñ la nee photo Sëriñ Tuubaa yi da nga ne lii moom c'est exceptionnel maanaam tey laa ko a gis kooku mooy baayam way juram ñu tànnal ko ko ci diggante tànneefi way tànneef mooy soxna maam Jaxate ma tënk ci moom itam tuuti kër gam jóge dëkk ba mu jóge dañoo fekkoon baax alxuraan ak xam-xam ak yar biñ ko indee ci sëriñ beet mu ëndaale alxuraan ak xam-xam ak yar moom soxna maam Faati Jaxate defe naa bokk na ci euh, aqwa dalilin preuve bi ci gën a wér mooy sëriñ bi def ko mujjoon génnee kër gu mag bere ko kër gu boppam ne ko li ngay jànkoonteel ci diggante xamle ak yar sa kër gu bopp lay doy moo waral boo duggee njaareem jóge Touba këram da féete góos boo tollee kër gu mag loolaat da koo jëfee ndax mbooleem soxna yi jaaroon ci moom di way juru sëñ Moustapha Saalihu di keneen daana jàngale masaalik ak mbooleem téere yi boole ci it daan jàngale alquran mubasharatan direct daf caa boole woon ne nee na su yaree nit ba noppi ci moom mooy su yaree as soxna ba noppi ci moom soxna soosu buñ ko nattoo woon kuy lekk laaxu daqaar di xëy tool di naanum déegit dana fa mën a ne kooku ci ngeen di dégg ne nit ki bu xasee ba yaru barab bu nekk bu nekk dana fa mën a nekk kon ñëw nañ ci sëriñ Touba mooy kan ak soxna maam Faati Jaxate mooy kan Cheikh Saalihu Mbàkke moomu nag amoon ay xusuusiyaat yu bari ci sëriñ Touba ay jagle bokk na ca taqoog sëriñ bi ci ak ndawam taqoog sëriñ bi it bi mu xàmmee loolu istidaad la man war ñu tudd ko idaad dañ ko préparé mën naa cee tënk rek benn bu gàtt muy nee na daana taqoog sëriñ bi ni doom di taqoog way juróom ba nee na sax daana langaamu ci loosu ku tedd kookee kon loolu taqoo la mulaasama la waaye li doon doon ku taqoog moom ci bi muy dafa meloon ne ab journaliste bu tiim ab événement ab xew-xew bokk na ci lam nettali nee na ku baax ki tëju ko diir bu yàgg ba mu tijjee nag mu mu wuti ko comme ni gone di def comme nam mu daw wuti ko nee na bi mu accès sëñ koo kalak loxoom nii sëñ bi daal di taxaw sëñ Saal daal di taxaw ku weesoogul ak sa baay di daw kooku day mel ne amagul ci xel lu ñor waaye danañ fi indi xelam mu ñor fii moom ba mu ko àkkee bi ko sëñ Touba defee nii mu taxaw nee na lam njëkk a seetlu mooy sëriñ bi maanaam sëñ Touba du yor mukk ci loxol càmmooñam alxuraan mbaa kurus daa daal seetlu ne sëñ Touba alxuraan ji mi ngi ko yor ci loxol ndeyjooram moom moom moom sëñ Saliou xamee na ca loola. bi ki des it gis na ko muy for ay fepp bi mu foree fepp yi ba noppi la ko ne yegsil xanaa xamu ne boo njëkkoon ne yegsi ci sa yoon wu njëkk wa dangay ngay joggi ci kaw fepp yi te kon muy niroo ko yàq. Cheikh Salim Mbacke nee na fa la doxee bañu yàq ba nëgën yi. jërëjëf jërëjëf jërëjëf tabaarakallah tabaarakallah ah, yaakaar day gi ñu amoon ci thème bi. leer nag suñu bopp. ah yàlla tabaarakallah. te yaakaar naa ne mbokki jullit ak mbokki bi yi koy seetaan tamit. ak waa réew mi dina leer seen bopp. waaye day mel ni tom boobu nga toll nag. Mm-hmm. daanaka rek ci la ñuy daal di sosaas sosaat yëpp yi. Mm-hmm. ndax yaa ngi egsi woon nag Serigne Saliou ab jàngalekat la. Mm-hmm. kon dañ lay laaj sëñ maxtaar bañ la doon laaj diggante sëriñ bi am na sax loo ki ak ku tedd gi waa juróom waa sëriñ Touba. Mm-hmm. waaye diggante sëriñ Saliou tamit nag ak tarbiya xam naa diggante diggante moom waajuram sax nañ ci dellusiwaat mm-hmm. door a ñëw ci tarbiya mm-hmm. ndax boroom xam-xam yi dañ ne wekk moo gën may sëriñ bi nga jox ko cëram moo gën sëñ bi nga jox ko million loolu mat a bàyyi xel la ci bokk yi ndax ñoo ngi ci jamono joo xam ne léegi sam përëg yaa ngi koy njëkk a dendaleeg sa përëgum sëriñ ba xam tolloo na am déet ahlu buxaara buxaari yu muy ngeen di dégg fa mu dëkk li leen may barkeb xam-xam mooy dañoo wekk seeni sëriñ ba wekk lu aju ci seeni sëriñ ni ko sëñ Tuubaa di waxee ci ci nax ju na wekk sëñ bi ba wekk lim am ba lim am sax bul ko niroog lim amul ba ci ay jaamam ahlu buxaara dañuy jël leçon ci kenn ci ñoom day jël leçon ci sëriñam boo xam ne dafa jànge alxuraan ba mokkal lu mel nga ñëw sëñ Abibu Jóob di fa jël bind kii jël si bind nag léeg mooy ñokkeet ñokket yi mu ne ko waaye looy def nii mu ne ko soo may jàngal sama doomi sëriñ day dawal ak cercle di jaar di jaar ci couloir bi te saa yu ma ko séenee damaa war a jóg màggal ko rek moo war a bëreet bëreet ji waaye du dara ci man xam nga kon ñoo tax ñu ne màggal moo gën maye. jox nit un milliard te tegoo ko fenn bañ koo jox dara te wormaal ko parce que sëriñ ñi nga jëriñoo ci moom ci wormaal mu ñëw ci sëñ Saliou Mbacke képp kuñ tuddee xaadim ku ne xam nga ne boo dikkee daara ji sëñ bi du la wax xaadim tur woowu du ko du ko wax képp kuñ tuddee maam jaara boo dikkee ci kër sëñ bi dootoo déggati maam jaara xaadim ji dañ koy soppi naa wala cheikh kese jaara ji ñu soppi ko maam busa lu ko waral mag a ngi yem ci buñ nee sëñ diw nga tiit xam ne kooku du sa moroom waxuma la nga ñëw ba gis sañ diw nag <laughs> di ko tappaas <laughs> orma jooju la Cheikh Saliou Mbacké jëkk a jox Serigne Touba ba ca des mas nañuy waxtaan bu waxee sëñ bi rek bu la nee ko sëriñ bi Serigne Touba la ci jublu moom amul keneen ku muy dugal guddi la woon muy wax ne ab murit bu ne war ngaa jàngi ngir nga bokk ci ñooñu sëriñ bi tuddee euh, euh, ñoñam daane laqante nii yaa malikil alfaada ba mu ne ah, teg ci guddi la maa moom ak kese ak yàlla parce que wax boo bëggee mu inna min barakatil qawli an yuza ila saahibihi soo bëggee wax importance neel waxal ka ko wax ba yàgg mu ne ah, wa bi ndeket boobu mi ngi doon jooy kon xorma mënta weesu loo tudd turam xorma mënta weesu mënta mënoo nettali waxam ja yaakaar naa loolu xorma mënu ko weesu koo xam ne mënoo tudd aw turam mënoo nettali ay waxam te rangoñ tuuruwul ok moo tax cheikhul euh, Mouhamadul Qabalaani yi daf ne woon école yu njëkk ya dañoo jàngaloon seeni doom jooy école yu mujj yi jàngal seeni doom ay diplôme bi diplôme yi dikkee nag jële fi jooy yi tappale yi tàmbali lu leer la wax ok moo tax moom du tudd sëriñ bi direct ki turam wa mas nañoo woo njàppandal fekk booba daa julli ma tolloog fenêtre bi boobu mu daan ubbi muy tolloog wetu càmmooñam benn waaye daan ne barki sëñ tuuba sëñ bi daan ne këng-këng ku ne fii mën a ko man mu <laughs> naa dama ne wool ma ñëpp moo mhm. waa daara jëpp ñu dajee mu mhm. toog nii ma toogee mhm. ñëpp toog ci kanamam kenn bu dikkee naan na baa kenn manqué wul ndax buy wax ñaare message yenn yi du bëgg gone ko ca gone gu ga sax ñàkk ko fekke ba ñépp teewee dane sa laaw de damaa bëgg ngeen xam ne turam wu tedd woow yi ngeen di tudd day ñaara war a tudd ko wala ñett bu ma juumul dugg ci gaal muy bëgg a lab nga tudd turam wata benn yoon doy na ca ak gaynde dàqale ba di la bëgg a jot mhm. nga tudd turam wata benn yoon doy na ca kon yaakaar naa kon deesu ko tudd mhm. ndax ñu dugg ñu ci gaal muy bëgg la mhm. deesu ko tudd nekkuñu ci ab dédd bu ñu gayndey jàppe am na ci beneen rewaay boo xam ne ku ko nar tudd sax na ngay giñ ci man baa ngay giñ ci sëñ Sall Touré nga xam ne moom ñu aar turam bu tedd caa tegaat ne képp ku koy giñe day te dëgg yaa yées ci say nawle kon xorma mënta weesu bokk yi lu mel noonu ku tegoon foofu kooku nag mas na wax ci ay waxamin ne sunu mbir ñi ngi ko teg ki imaanun saadiq amalun saalih ak ñetteel ba euh, en tout cas daal dane woon euh, tarbiyaam gi mi ko tënk ci gëm gu mat sëkk wa wa Euh, sadiqa effectivement ñett yooyu la ne sëñ Saliou nee na ci la tabax mbiram kon nag Cheikh Saliou Mbacké ni mu tegoon fi mu tegoon sëriñ bi mbokk yi mooy dafa aaroon turam mu ormaal ko tegoon sëriñ bi daf koo jëloon kaqaduwa roy teef la mas naa wax ne sa laaw day yoonu murid li ci ñeent yi ci jiitu mooy yii li ci tege da caa tege daal di tudd njàngum alquran ndax ni ko sëñ bi fonko teg ca njàngum xam-xam xam sa diine daal ni ma war sax sasu bi sasu yi gaa yi ci daara ji xam nañ ko daana wax naan sa law lii de mooy sasu murit mooy juróom-ñeenti téere yooyu ku ko mokkal nag bu la neexee maanaam ku ko man bu la neexee nga dolli ci waaye ku fi yam it mooy saw sas daal ni sa law boo ci dolli nag leneen loo wax manes na ko weddi waaw loolu lan tënk kon moom daana jàng lu xam-xam daal di cay teg ne njàngum xasiida mooy ñetteelu tomb bu yoonu murit biñ ko sosee ak ñaqu jë ñaqu jë mooy nga takk sag der dem tool liggéey kon kooku loolu la jël ci sëriñ bi danañ ci ci gën a yaatal incha bu ko waxtu wi laajee Cheikh Son yi bo jërëjëf jërëjëf sëñ Makhtar tabaarikala tabaarikala sant nañu bu baax a baax day mel ni mbokk yi fi teew bi mi ngi mel ni ñoom ñëpp ñi ngi ne teg tekkaaral gi nag li xam naa li ko waral mooy wax ji dugg na leen te jàpp naa ne tamit ñii seetaan waxtaan wi mhm. nii mu ñu duggee ñu teewee jataay bi mhm. ñoom tamit la leen duggee noonu kon bala ñuy ñëw ci sëñ Abibu mm-hmm. muy am kàddu yum sànni ci waxtaan wi mm-hmm. sëñ Saliou Mbacké wax nga ñu mm-hmm. mooy kan ah. ndax wax nga ñu waay juróom wu tedd wa muy tamit waay juróom wu tedd wa muy soxna Faati fotool nga ñu tamit aw meloom fotol ñu tamit lenn ci ay jikkoom fotool ñu tamit ab liggéeyam muy tarbiya xotool ñu tamit ku tedd ki nga xamante ni mooy waajuram fa mu ko tegoon ak royukaay la ko defoon tamit mm-hmm. loolu yaakaar naa leen bi suñu bopp mm-hmm. waaye kenn ku ne xam ne waajuram wu tedd woowu tamit dëkk bii ñuy defee waxtaan wi daa nekk dëkk boo xamante ni dëkk boo xamante ni moo doonoon léppam muy tuuba boo bëggan nag ngir ñun taalibe yi ak mbokki jullit ñi jariñoo ci Touba muy dëkkub sëriñ bi mm-hmm. ak tamit nun waa Touba tamit mm-hmm. nunu war a jariñoo ci Touba loolu bëgg nañ nga baarakallahu fiik baarakallahu fiik xam naa ma dooleel la benn tomb mm-hmm. ci tarbiya ndax ginnaaw moom liñ séddale lépp dajaa jël tarbiya muy wàllam daa mel ne ci loo xam ne ñun ñëpp xam nañ ko dañ ne ki yar dafa war a dégg ñi muy yar dafa war a xam bii abi temps bi muy yaree ban temps la lan moo xew ci jamono ci ay yàqu-yàqu nit ki boo ko bëggee yar ban environnement nga koy intégré est que da nga koy bàyyi ci taaxee wala da nga koy yóbbu àll ba ay détails yu yaatoo nga mbokk yi genn këruk sëñ Saliou Mbacke gu muy yaru gu muy yaree gu jàkkaarloo geneen kër te tudd daara ku ko ca xam ne ma ko wax su dee gota léegi la dëkk ba màgg sëñ sëñ abi bi moo fa nekkoon waaye jubluwul woon a taqoog waa dëkk baa jàkkaarloog ñoom ay néeg léedeet mm-hmm. boobu ba léegi nag geneen kër gu muy am gu ñu yare gu nekk ak ndànd foy foy la mooy kër goo xam ne saa yoo génnee daj ci àll bi loolu lu ama am solo ci yar la ndax nit ki mënoo ko takk wiin mënoo ko former fekk yaa ngi dugal keneen di génnee munta tane mais su fekkee daa nekk fenn di tànq di gis lenn di gis ñenn di dégg lenn bu yàggee day làgg ci loola bu fa duggaatoon bu fa jógoon dem Paris dootu am jeexit ci keneen surtout gone gu ndaw loolu tax sëñ Saaliwu technique bi mu njëkk a def ci yar jaaxal mu képp ku yare mooy ñeme gim ñeme àll ak ñeme gim ñeme wéetaay ak ragal gim ragal jonjoo ci ku muy yar loolu lu yéeme yéeme la ba tey awalan thaniyan jumtuwaay yim def muy ab yarukaayam ginnaaw waxaguñ nag ci sifaat yi nga xam ne mooy nit yéem ni muy composé mais dafa am ay alaat jumtuwaay yu muy yare gone gi ne cëpp ci moom ginaa ba ko miinalee boppam ba noppi alquran la cee jiital xanaa loolu kenn du ko critiquer bu fekkee ay julit la buñ dul ay julit nañ tontu kon la borom xam-xam ba tontu woon keneen ka dañoo ne ko yéen waaye lislaam da ngeen a sonal da ngeen a sonal seen doom yi mu ne ko effectivement mu ne ko ndax lan mu ne ko sunuy doom juróom mbenn fukki isib da leen di xaar ñu war koo mokkal bi ci desit ahadis nabawiya yi nga xam ne yonent bi daf koo soloo dañ ko war a xam te buñ noppee dañoo war a pëcc ak yéen ci àdduna ngeen bañ ñu ko ëppalee nee na goog gone du am jot am solo la wax moo tax mën a ko nag yéen nag ci ci testament ngeen di wax testament mooy loo xam ne mën nga ko tekk pël mën nga ko tekk ci xalpulaar mën nga ko tekk ci wolof mën nga ko tekk ci loolu la neex bi daal li mu wax mooy moom mën nga ko traduire ñu ne boo ne woon xulaas bi rabil falaq ñu ngi lay wax waa xaar ba xam min sharri maa xalaq nga ciy tegam déet boo ko ci tegul ñu la juum nga kon islam li koy xaar rëy te bari waa ji ko nag ñun suñu doom yi juróom benn fukki isib da leen di xaar te dañ ko war a mokkal dañoo war a xam ahadis nabawiya liñ solo ci seen yonent te dañoo war a xam it ñu ko sos ñu ko solo yéen nag yeson bu ngeen ko waxee bu leen neexee lu leen neex ngeen teg ko ca kon lii tax kon yar war Cheikh Saliou Mbacké njëlbeen gi ci gone gi li muy njëkk a moom mooy xamal ko téere bi yàlla bi bil xikma nag wal mawxidatil xasana parce que bu ko doon xamal téere yàlla boole ko ñu koy gër bala ko gëdd nga ne waaw waaye déedéet programme jàngaleem adduna mun ta am tatawur mun ta développé wu ba contre sëñ Saliou Mbacke ci benn point ci jàngale ndax lan xale bi dana ko logé foo xam ne mooy gën kër baayam li may wax lu leer la ndax ñi may waxal duñ ay jàmbur ci man duñ ay malien li ëpp ci daara ji bi ñuy fanaan ci néegi tabax si yaay ak seen baay yañ bàyyi ña ngay fanaan ci néeg yuy wale ak seen na lu leer laa leen di wax benn bi sëñ Saaliw di fexe ba donga yi di lekk ka naan ka xëy di naan kafe am na ñoo xam ne dañuy xëy di serete ci bant mooy duñ xëy naan kafe ci dëkk ci réew mi kon xale bi nga loger ko foo xam ne moo ëpp sécurité kër baayam nga di ko jox loo xam ne moo gën a nekk produit alimentaire bu bu bu bu bu ëpp solo la baayam di lekk mhm. mbokk yi kooku deseelu la dara ba noppi nag bàyyi bu ne dafa war a yar la boroom xam-xam yi wax. Mm-hmm. ñu ne waaw mu ne waaye bàyyi léeg-léeg day tële ci yar. te mm-hmm. <laughs> waa réew mi bu leen ay ay yarkan ngeen ñoo gën a xam dañuy nax seen bopp. Mm-hmm. am na kër yoo xam ne jigéen ñaa ko yor. ñoo fay dogal. waaw xale bu màggee ci kër jigéen joo kër goo xam ne jigéen a fay dogal ko bu màggee lu muy lu muy jàpp. ndax dana baax am na kër yoo xam ne baaxoo wuñ di jàng alxuraan kooku bu màggee kër papaam mën naa am ay comportement yu bari mais du mokkal alxuraan am na sax kër yoo xam ne góor góor góor góor nañ ba mën a jàng alxuraan mais mënuñoo jàng xam-xam su boobaa kooku dana manqué sëñ Saliou jël mbooleem liñ soxla andi ko ci daaraam installé boo dikkee xale bi da nga loosé fu baax da lekk lu baax da ngay taxaw moom dana la jàngal alxuraan dana la jàngal xam waaw léegi kon kooku ndax wurta yare as-su'aalu alladi yatrax nafsa question bi posé boppam mooy est kooku wut a yare sëñ Sall bu dul woon daa bëgg a yare bañ gis muy def système bu mel noonu gouvernement bi war nañu mm-hmm. parce que kooku insaan nit kuñ soxla la mm-hmm. awalan mm-hmm. bi ki des muy nax-naxal xale bi di la ko nax-naxal loo daana wax naan sa laaw day gone gi nga fexe ba mu weg la moo gën nga fexe ba mu ragal la maanaam nga fexe ba mu rus la mm-hmm. nee na moo xam moo gën nga fexe ba mu ragal la mm-hmm. ndax nee na ki ragal moom feeg mi ngi lay gis mm-hmm. day ragal a def loo bañ ki rus nag nee na day bañ a def loo xam ne buñ ko ko nettalee ëllëg mu ne mbaadu yaa ko def xoolal ma boobu xekk ma wax naan ku la gën a nangoo jaxasoo gone it yaa ci gën a mën a am li ma bëgg léeg-léeg mu gis nit koo xam ne la koy soppi bëgg ko du mën a jàngaleem sax xëy na waaye na ko gone yee ñemee te loolu murabbi ñi nga xam ne dañuy jàngale ilmu tarbiya bi boo demee ci mustalahaat qadiima yeeg xadiis yi dañuy wax nit ki bu am xelam naawee dootu amum xel kooku d' accord nañ ci ñun ñëpp boo ko ne demal jàng rek xel mu ne fëy jë bàyyi daa mën nga ko ne demal toogi bu jàngee du ko xam douze mille personnes nga yor ko ci benn organisation bu am ak ak normalité. Mhm. déggoo ca kenn kuy def laneen. Mhm. si sëñ bala ngaa xam ne moo jafe nga wut cent personnes. ñu nekk ci ginnaaw xur wii. chaque jour da nga dem police. yaa nga gendarmerie. yaa ngay yaa ngay jéggalu euh, ña nga dendal. lu ko waral. Mhm. borom xam-xam daf ne. nit ki nga taxaw ci kanamam di ko gëdd ka saaga. nga jàngal ko yoon wu ñuy tegee. moo gën a yomb. Mhm. parce que mënoo tout le temps ngay taxaw ci kanam di ka saaga. Mhm. boo ko xamalee yàlla. Mhm. noppalu nga ci moom ndax ruux xamut ku dul boromam. ar ruux la taarifu ila rabba. moo tax ñu ne. borom xam ne nee na ko tatma innul qulub. nee na ruux saa yu xamee yàlla noppaliku. noonu lay tekki. nit ki boo koy jàngal jàngal ko alxuraan alxuraan ja dugg mhm. nga jàngal ko xam-xam chariya mhm. bi mhm. xam-xam ba dugg nga jàngal ko muallaqaat chariya yi lépp lu ñu waxoon ci àdduna nga mën a toog fa nga toog ci sa biiri néeg yaakaar naa xunaa London moom sëñ ba sëñ abi bu Jóob mi xam na toog fii di xam la ca Britannique toog fii di xam la xew Amérique kooku nit a koy def waaye tarbiye nit mhm. bu sëñ bu jubee sëñ bi xalan mhm. ñëw sukku raam mhm. boole dee si gannaaw sëñ bi ñeme naa tox ñeme ñeme naa dandal randal lu ko jar kooku du mu rabbi loolu mu naan def nag fexe ba nga nekk xam sa borom fexe ba nga xam itam lan mooy dox ci adduna bi nga xam ne da ngay daal di xam ne daanaka euh, jamono yooyu dañ daan wax naan ay jimi keltee rek ay ay ay ñu yàgg ñooñu ay sàcc yooyu yëpp nga xam na da ngay toog ci daara ji mm-hmm. di joxe information boo xam ne directement ndax yow yaa ngi xunaa London rek ngay ngay suivre mm-hmm. loolu mooy niteel nit bokk yi mm-hmm. moo ak nitam fu mu jógee ca daara ja du nangoo doon ab dongab daara daa iman dongab daara ak donga di su ci dëkk da ngay xam ne yaa ngi woon ab donga di jàng bi nga noppee léegi dégg doon nga ab responsable yaa président yi yeeg ministères yëpp war ngeen di mën a mbëkkante loolu mooy ku mat waaye am na ñoo xam ne bi ñu noppee gi seeni donga fii gisuñu sëriñ bi gisuñu lu bokk sëriñ bi mhm. duñ xam dara li ñu xam rek mooy tàmm banque tànk ak raam ak sukk waaye ki des yëpp mënuñu ko réglé mhm. kon nag tarbiya ak sëñ Saliou Mbacke dafa nekk chumoliya mhm. dafa nekk loo xam ne dafa capable bàyyiwul dara tabarakallah tabarakallah tabarakallah jërëjëf sëriñ Maxtaar sant nañ bu baax a baax a baax a baax ci bi ngay daaneel suñu men mbokkum taalibe di jëwriñ ci kër gi sëñ Balla Jaxate ñëpp xam ko ci wetu sëriñ Cheikh Salé mu di ko jàppale ci liggéey bi. Mm-hmm. egg si ci jotaay bi. Mm-hmm. ñu di ko nuyu. Mm-hmm. te di ko jox ab cëram. di ko yóbbante nuyoo tamit ca suñu sëriñ bu tedd ba. sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Salé. bi ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu tamit ak wér. ñu dellu si waat ci sëñ Maxtaar. ndax ni ma ko waxee léegi wax nga ñu sëriñ bi wax ñu ay jikkoom wax muy yare wax ñu tamit ni muy bu noppee ci doomu aadama bi doomu aadama bi ni muy mel ak ni muy jariñu réew mi. ak ni muy jariñe boppam waaye tamit ni muy jariñe ay waajuram xanaa kon nag ñu barkeelu ci dëkk bu tedd bi nga xam ne fi lañ nekk di ko defee waxtaan doonoon dëkk boo xam ne sëriñ bi moom rek la bëggoon sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul mm-hmm. sëriñ bi tamit Saaliwu Mbàkke am liggéey bu am solo tamit boo xam ne def na ko ci dëkk bi mm-hmm. boo ñu doon jàngatal nag mm-hmm. loolu lan lan loo ñu ciy baaxee jërëjëf euh, Cheikh Souhaïbou xam naa la duuf ci nag moo xëyul ca cin la ñu jeexal ci yar daana wax naan ku ñibbi ci say bokk te ba nga demee saw tur soppikuwul fa ñoom mhm. ñu mujj naan la sëñ Sohaybu bu sëñ Habibu mhm. lañ daan def buñ la séenee di ko ñemee def ba tey nee na kon war ngaa seetaat sa bopp la nga fi doon wut amoo ko loolu bokk na ci xikmaam mhm. ku ñibbi ki say bokk te saw tur soppikuwul ñu naan la sëñ Sohaybu bu sëñ Habibu sëñ sëriñ sëriñ te la nga daan ànd ak ñoom di ko def ba ngay gone boo demaatee ñu ñeme ko ànd ak yow di ko def mm-hmm. nee na kon nee na la nga fa doon wut des na foofu laa doon tëje ci tarbiya gi Tuuba mm-hmm. ku nekk xam na ne Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba li mu gënoon a bëgg mooy Touba. Mm-hmm. moo tax ko suñu borom di nattu ci Touba rek la ko nattu fi ni ñuy wax yëpp nattu suñ Touba bépp Touba rek la ba mu demee Gabon wàññiwu ko dara mhm. mais ba mu ñibbisee nag lañ ko ne fii doo fi ne xam nga looloo gën a metti fii ne sëñ Tuubaa ku ko ne woon kaay dem Gabon te boo desuwaar nga nekk Tuubaa buy moom mhm. waaye ba mu jógee Gabon jóge ci yéen mhm. keroog ba muy dem njaareem bi mu jubee kàdd balloo ji gi lañ ko ne boo fa jaaree du baax te tubaab bi néewu ko boo fa jaaree du baax chef de canton bi néewu ko boo fa jaaree du baax suñu borom moom ko séqaloon moo ko ne fee waroo faa dem lu mettee noonu mbokk yi mu dem njaareem nefa fa fukki at juróom léppam Touba la boo jógee Touba mu teral la buy wax ci Touba ñëpp xam ne lii la gën a bëgg mm-hmm. kon nattub Serigne Touba mooy Touba mm-hmm. nattub géej gi par rapport ak Touba mutu ci un virgule cinq pour cent il faut ñuy indi mm-hmm. mbir yi ci ni mu doonee loolu la tuddee borom xam nga tuddee ilmul qiyaas da nga jël benn affaire nga natt ko ci mbir xool na mel ku ne xam na ne sëñ Saliou ni bëggee sëriñ Touba ak sëñ Touba ni mu bëggee Touba ñaari bëgg-bëgg yooyu dañoo croisé moo tax sëñ Saliou lu muy def ci Touba lu nekk day jël armeem arme bi mu yor di geeral sëriñ bi di ko war ne ko fa nga gënoon a bëgg te yàlla nattu la fa baal ma defal la ci lu fi kenn mënut a def noonu boo ko déggee noonu rek léegi li ci def lépp day daal di yomb waral na bu kenn defe na it daa nekk xalifa am xaalis defar Touba kooku xata la sëñ bi mu participé ci Touba. di participé ci lu sëñ Touba am. jumaay Touba jii defe naa ñebe jum bayoon mbaakool la la la la njëkk a jaay jox ko <laughs> joxe ko ci. ngir bëgg rek jumaa ji kawe. sunub liggéey nun ñii ñëpp suñ masaana liggéey ba noppi. ka ko daan yóbbu da ko naan ka fiy nekkal sëriñ bi. jamono suñu abdoulaye man laa fi fekkee. bu ko masaana jox ko koy yóbbu cib saako la koy takk ay milliards nga takk ko cib saako sàmba ñukk. sàmba ñukk mooy xo si saako siyaam boobu am xóolu verte ci digg bi. ki koy takk ba mu dëgg ne ko demal joxal ma ko suñu abdu te bu fa fa nekk ndékki lam ko koy joxe mooy nee na nañ ko def ci liggéeyub sëriñ Touba bi daana wax naa ni yéen li ngeen may jox dama koy def ci liggéeyub sëriñ Touba bi li ma sama borom di wërsëgal ma leen ciy dundal bu kenn defee na da nga doon bay di lekk déedéet da ngay jox sëñ Saliou bay mi mu jox ko ki fi nekkal sëriñ Touba mu def ko ci liggéeyub sëriñ Touba bi léegi sëriñ Touba nag benn génn ci dëkk bi sëriñ Touba amuloon projet France amu ko Dakar amu ko sax njaareem gi mhm. kenn benn doom Sëñ Tuubaa bu fi nekk bu mas a def benn cotisation bu ñu def bu ñu def mu génn dëkk bi amul mhm. ak mbayam ni mu daan yaatoo mhm. ba mu nekkagul xalifa général des Mourides ci ñi gënoon na mën a bay ci la bokk ndax 88 89 la jot xel ko kon sorewut ak fi mu nekk xalifa waaye lu trent 31 33 la sañ ci got ku tàmbalee bay 33 ba 89 90. te la nga daan bay mosoo caa lekk dara. nga tàmbaliwaat nekkub xalifa liñ lay jox. moomoo ko suñ taw suñ taw sinal daan wax ne liñ koy jox moomu ko. liñ koy jox ci turu sëñ Tuubaa mook waa kër sëñ Tuubaa ñoo koy bokk. da ko daan séddale sax sana wi yan par at. daal ne lii mooy saa wàll. ñi ci des mooy wàll ñi ci des. liñ koy jox nag di ko di ko ko sujjóotale ko di ko ko siyaaree mu koy dugal ci poosam bi loolu lañ daan dundale nun ñëpp kon kooku bu Tuubaa doon projet ma ne mooy mu mawwil bi mooy le grand financier maanaam ki ki ëpp lu mu joxe moom lañ ko mën a tuddee ndax li mu daan bay bari na lool te lépp daf ko daan def ci dëkk bi moo tax bu kenn defee ne suñu saa nekk xalifa rek tàmbali def ci dëkk bi loolu njuum te lu rëy a rëy ci ñëpp la bi ci des Touba jaral ko lu nekk ndax li fi sëriñ bi nekk waaw ginnaaw moom sëriñ bi léppam heureusement sëriñ bi léppam mi ngi ci dëkk bi moo tax mu defoon Touba muy léppam bi mu tàmbalee lotissé defe naa ko xaman fi Touba yeman bi taxdiit ak lim ci dolli ak système bi mu ko ci dollee da nga naan kii ndax daa demoon Canada mbaa mu demoon Amérique jàngi ni ñuy dundale ab dëkk ndax lan taamir huwa anshaakum min al ardi fii fiha yàlla moo leen sos ci suuf pour ngeen développé ko akay <laughs> kan mooy dem ci ay tool di ko développé bàyyi dëkk ba muy fanaan ak a yendu hada min al xabaawa xabaawa yaakaar loolu gàtt xel la wala xamaaqa sax muy ñàkk xel waraloon na bi muy lotissé engagement bi mu jëloon ci lotissement bi ci ay ay ay finance yu rëy da ci joxe lu dul jeex bi mu noppee ni mu sancaloo nit ñi moo gën a yéeme nit boo ko joxee terrain niil ne ko yaa ko moom ak nit ñi ni ñu bëggee ak moomeel ñeenti piquet lañ fay def peinture ko def ci seen numéro téléphone dem seen yoon ñibbi loolu du dund ab dëkk da dët wax naan ko indi say bagage na ngeen ko jox ok indi sa moom kuy dëkk la te it yi daf ko daan le waxul ko am di sab saak euh, sa danaan la ko indi ab fu ñuy fanaan ak cin lu ñuy toggee ak soxna su koy togg xoolal ma boobu technique comme suñu saaliw daa mel ne moom fi mu fi moo rawagoon mbooleem ku amum xelum doomu aadama sëñ Saliou la gën a moos boo andee sa soxna andi sa doom andi sa say cin sart la woon ci ci ñu doon joxe kër yi ak lal bi ngay tëdd waaye sëñ bi kooku kookuy dëkk la moo waral moom fi mu tàmbalee woon bi muy joxee luñ ci violé rek dafa nekkoon en norme loolu lu rëy rëy la ci dundal Touba ci ak xilaafaam lañ gise ñu baree bari tuxu tuxu gu semple nit ki boo ko ne yaa moom fii mu dem wacc ko fa dem di bay du ko defar bu ëllëgee mu seer mu jaay ko waxaale wuñ ko kon nag lim njëkk a defal Touba mooy wutal ko ñu ko dëkkee. ginnaaw bu ko lotissé joxe ko. ba ca des prochain boobu ngeen déggoon muy tali daf dafa ne nañ nañ njëkk tali yi ci ci àllaar si. ba waa àllaar si di mën a ñëw ci dëkk bi bu ma ne àllaar mooy banlieue ci olof léeg nga wax baat bu xaw a luxa mu ne waa àllaasi nañ leen wutal ay tali bañ mën a bokk si ki dëkk bi su ko defee la des ci xaalis bi door ko wërale nag ci biir dëkk bi xoolal ma boobu ci àll bi feeg associé woo ko dëkk mu am développement mu ne woon nag nañ tàmbalee tali yi ci àllaas yi ba àll bi mën a dugg si ki dëkk bi su ko defee la des yi nag ñu feesale ko dëkk bi kooku doone aalimun almaani yi doone aalimun amérique yi doone aalimun kanadi da nga naan kii daal rabbaani yi la ku yàlla andi la loolu bokkoon na ci lim daan def daana waxit ne ndox mi nit lim munta ñakk ci bu xëyee mooy am ndox moo waroon gis nga fu mu lotissé fu ne installation cent vingt yi bi mu jóge ca 32 bi sotti ci dugg ci bi kër gi loolu loolu bokk na ci liy dundal ab dëkk xattaa ba ci gis nga tubaab bi sax li ñu ñàkk euh, euh, solo li ñu njëkk def mooy ay tali mhm. akum ndox ak i ak ak i piquet mhm. soo ko ba kër gi day daal am valeur mhm. soo koy jënd yaa ko moom nga defar ko soo ko moomee mu xiirtal ci nga mën koo defar yooyu yëpp technique boobu suñu saali am na ko ba noppi tamam bu toogee naan jëmm ji nag wax dëgg yàlla nan la mën a xalaati lii bu nekkoon sax koo xam ne dafa niroog loola <laughs> waaw loolu kii maa ne la koo xam ne bu toogee yow buñ la buñ la ko desee dessiné woon nga seet lim lim yor lépp ci luy niroog ay valeur bu dem mukk vingt cinq mille te saa yu xelam mi xellee xeli ay milliards loolu moo la war a jaaxal sëñ bi ndax loolu ma wax noonu tey ku ko ku doon wane ki ko def la ca doon tane mooy ñu wan la koo xam ne day nekk ci siis boo xam ne dañ koo xoob yore yëre yu garaaw ñi ci wetam dañu ay intellectuels yoo xam ne dañuy dem ak dikk nga gis ko mu yore ay ay ordinateur sax lu ban bon di bind ak maas waaye saa yu fastee loxoom yi jëf loo xelam mi jëf-jëfi état loolu moo gën a yéemi ci sëriñ bi ku fonk Tuubaa la ku ko gëm la asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëñ Maxtaar tabaarakallah tabaarakallah waxtaan wi am na solo lool liñ ci doon seenu lépp ba taamu la tabaarakallah gis nañ ko ci tabaarakallah tabaarakallah liñ bëggoon nga waxal ñu ko tamit ci sëriñ bi mhm. waxal nga ñu ko mhm. ñu ñaan suñu borom may ñu xel muñ ko mhm. déggee jëfe ko jariñu ko jariñoo ko te jariñe ci sant nañ la bu baax ñu ñaan suñu borom bàyyi la sa xam-xam amiin amiin <clears throat> la sa sago yàggal sa taxawaay amiin amiin Abibu mhm. ñu dellu siwaat di la siyaar bu baax déglu nga waxtaan wi nga xamante ni sëñ Maxtaar waxtaan na ko ci sëriñ Saliou Mbacke xam naa ne yow moom jàngat ko dina la yomb lool. Mhm, mhm. ñu bëggan ci tënk boo daan jàngat waxtaanu sëñ Maxtaar bi yow loo ci xellee loo xamante ne nii mbokki jullit ñi danañ ko mën a jëriñoo ak tamit sëriñ Maxtaar lii mu ñu wax ci sëriñ Saaliw mm. mu doon sëriñ Saaliw moo xamante ne nii sëriñ Saaliw mu ñu xam la ñun mm. ñu fi toog ñëpp yaroo ci moom ak lenn léeg-léeg tamit sëñ Saliou léeg-léeg mi ñuy dégg ñun day mel ni moo tax xamuñu ko woon ñun mm-hmm. te sëñ Makhtar moom ki mu ñu wax mooy sëñ Saliou mi ñu xam waaye jamono nag léeg-léeg da ngay dégg sëñ Saliou moo xam ne day mel ni mel ni sëñ Saliou Mbacke la mi ñuy wax mm-hmm. moo xamul woon mm-hmm. ci tënk loo ñu doon baaxee ci jàngatal ñu loolu ak ubbi ñu tamit ci loolu bismillahi rahmaani alhamdulillahi rabbil alamin alsalaatu wassalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin almakin <clears throat> wa ala alihi wa saxbihi dawi ridwani waltamkin wa man tabiahum bi ixsanin ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki noo ngi leen di nuyu te leen siyaare <clears throat> di fab nuyoo bi di ko dugal ci nuyoo bi nga limoon Serigne bi bi ngay tàmbali yaa tàmbali jataay bi tàmbalee ko ca mm, kilifa ak yoon wi Cheikh Mouhamadou Mountakha jaar ci jëwri nii kër gi di Serigne Cheikh Saliou nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk yëpp dugal naa sama nuyoo bi ci biir nuyoo boobu ngir gàttal euh, di siyaare ñëpp xam naa waxtaanu seen waxtaan Kébé dafa dafa yaatu te làmb lu bare bare bari te feeñal nag sëriñ bi bu baax a baax a baax a baax nga man man boo ko bëggee boo ko bëggee jàngat fenn rek laa koy tënk ndax moom kan mooy sëriñ Saliou la doon jéem a wone loolu nag kenn du ko man waaye dañuy misaal rek kan mooy sëriñ Saliou ak nan la toll hmm, la loolu la ñuy jéem misaal di ko jéem a woon nit ñi ma nattu ko man ci benn nattuwaay képp ne arab dafa wax ni sëriñ bi bind na ko ci ndax sax bi xadaril kaddi taktasibul maali maanaam nit ki kem talaayal coonoom noonu la ay kooy ay darajaam toll waaw foofu ba nag boo andee sëriñ Saliou andi koo xam ni ci fukki atam ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent la tàmbalee taqoo taqoo ki gone te la ko jiitu ci daara la ne la ko jiitu ci daara la ne ba ci biir daara jooju ba bi mu daa bi mu ko daataan jeexal liggéey bii muy wax ni te liggéey ko mbaakol te ñu def ko ci jumaa ji loolu boobu sëncagul daara boobu mbaakol la ci ba ci ba nekk ci daara ya nga xam ni kon ñu ngi woon ci coono boobu ba 18 ba mu egg ci ay 18 19 ans ndax xam naa ni ñu koy waxee bu fekkee noonu la wére 15 euh, la feeñ 34 33 34 la sanc got 33 mooy waaj taay waaye 34 moom ci làmmiñam laa ko déggee moom mooy mooy sanc bi nga 15 la nga nekk ci coono ba am fukki at ak juróom-ñeent nga xam ne weesu goog ndaw sanc daara sanc daara sancandoo koog ñoo xam ne ñoo ñenn mag ndax ba muy sanc daara ji sancandoowu koog gone ay mag la ko sancaan sëñ Moxtaar Jaw euh, sëñ Abdou Salam Ba euh, ak ak ak ak ak nga xam ne am na sëñ ñooñu ñoo xam ne ñoo ko mag booba ñu jaras di kalaasam ci ci gone ya soog a tàmbalee ñëw xanaa booba la tàmbali coono ba te tàmbalee coono ci jamono boobu taxaw tàggoowu foo ki gone tàggoowu foo ki mbooloo amul beneen liggéey tàggoowu ko fi gone tàggoowu ko fi mbooloo di liggéey di joxe ba 2007 kooku coonoom ku ko mën a natt ana kan moo xam ci kaw suuf ku daj lu toll noonu ci coono boo bëggee xool sa net sëriñ Saliou net ko foofu rek comme bi xadiral kat di teg sasimul maali te moom dëndam bépp coono yooyu la coono boo xamante ni bi dafa feeñ ci réew mi Eh, ndax li nga xam ne moom la defar ci kaw suuf jamono yii ñu toll ku leen woowoon ne ne ne ne ku jaar a jaar waxuma ñu ne ci biir suuf waaye ñu ne ci kaw suuf rek ci fi mu ne kon woon ñu mas a jaar ci daara Serigne Saliou wu fa te may leen ay possibilité ñu am jot gi nga ni ñëpp nañ daje si Touba te dana mel ni màggal Touba su foo dem kooku nag kon coonoom ku xam kan moo mas a daj jooju jooju coono boobu boobu coono ci kaw suuf amul boo ko xoolee foofu doo am kenn koo koy tëkkaleel amul ku ma sa daj lu toll noonu kon euh, darajaam boo ko xoolee foofu da nga ci gis lu baree bari ci nii nga xam ni noonu la ko euh, sëriñ sëriñ Moxtaar sëriñ Moxtaar tënkee loolu mu wax ni damaa xam yoon wi ndax dama ko damaa koo ànd ak borom yoon wi fukki at ak ñaar te ku ko keneen ku ko yor maa ko ma ma noo ko ànd dafa mas a wax ni dama bëgg ngeen xam ni yoon wii ma leen teg làmbatuuma ko ndax kenn gënu maa xam yoon wi noonu la ma ko wax keroog kenn gënu maa xam yoon wi moo tax ma bëgg yoon wii ma leen teg ngeen bañ koo wàcc bañ koo soppi te ki ngeen keneen ku ngeen gis muy dox dox yéen wu wuute wii ma leen tegit bu leen ko roy bu leen ci sikkal fekk nag waaye bu leen ko roy ndax kenn xamut kenn amut lu gën a wér lii ma leen wax wala kooku boobu responsabilité ak wow fit ñu ko ñu ko ñu ko ñu ma bëri kon lool wone na ni ku ko gën a ku gën xam yoon wi amut te man sax damaa jàpp ni maanaam maanaam daf caa boole teggin waaye ku ma gën ta yoon wi amut man laa noonu laa déggee koo xam ne gënu laa xam yoon wi amut ndax euh, euh, ay ay ay ay ay ay ay bokkam nangul nañ ko lu baree bare loo xam ne nangul luñ ko kenn ay bokkam nangul nañ ko loo xam ne nanguluñ ko seen bopp ay bokkam fam na seen i doom jox ko ay boppam fam nañ seen i doom jox ko te bu fekkoonte ni doyu leen ca loola kon yaakaar naa ni te kenn ku nekk ci ñoom mën ngaa yar sa doom mën ngaa yar sa donga waaye dañoo boole seen i dong ak seen i doom amul woon ci daaraam donga bu jógewul ci kër kilifa sàngam kër kilifa sàngam ñu leen jege ak seen i mbokk ñooñu leen fa foogoon di leen ko jox loolu mooy wane ne lim doon def la lum man la lum xam la kon kooku ñaari anam yooyu rek boo ko soxla da nga gis ne maanaam doo am kenn koo koy tëkkaleel ci yoon waaw kon moom moom moom moom moom jëmmale joo xam ni wax dëgg yàlla ab defaram ci nit ni ko sëriñ Maxtaar waxee bu noppee da ci da da da day sotti ndax dégg naa ñu wax ni euh, c'est te loolu mel na ni wér na sëriñ Soay bu nee na ku ma noppi ci yow da nga mën jëw da nga mat ilimaan waaye sëriñ Saliou ku ma noppi ci dana mat jëwrin mat ilimaan loolu ci baat waati kilifa yu wér laa ko laa te loolu fi li ko firndeel mooy fam fam naa ay dongam téeméer ak nangam eh, fam ay dongam yëpp yët ko sëñ bi ndax booba moom day jàngale alquran day jàngale alquran di yare di tërbiya di yare di tërbiya waaye ci biir këram gi na demul fenn waaw demul fenn ba yëfi mu fab ca lu bari jox ko sëriñ ñooñee man mii leen Serigne Saliou doxoon maa maa ak maa ànd ak ñoom dem got mu ñoo xam ni ba ma leen nattoo ñi ci gën a bari ñoom ma gën a mokkal alxuraan ñoom ñëpp mokkal gu rafet lañ moom nga xam ne ki doo xam ne ñii li ñu bëgg ci ñoom lu mu doon ndax alxuraan ju rafet moo nekkoon ci ñoom ba noppi jàng jaata tàmbale tàmbale njàngum xam-xam wax ni ñu bari sore gun ca waaye tàmbale nañ ca waaye wattu gu rafet lañ doon wattu nga xam ni sama coono bariwu ca lu ma leen jàngal xam-xam waaye ñoom ña mokkaloon ñoo doon ñoo doon ñoo ñoo ñoo doon jàngal ñuy jàng ñuy jàngal ñuy jàngal Qur'an muy nit ñu am ñu am qualité ñu baax ñu ñoo xam ni mel na ni sëriñ Souhaïbou sëriñ Souhaïbou am na lu mu bëgg si ñoom ndax def na ci ñoom loo xam ne bu leen bàyyi woon ñu dem doy na doy na sëkk kon euh, kooku sëriñ Souhaïbou mu ne su koo mu ne su koo jàngat jàngat bu bu saa soo ko jàngatee day mel ne da nga da nga da nga da nga da nga waxee noo xam ni day mel ne du du du kii daal du du du du am solo. waaye kenn ku nekk rek sa xel ngay jëfandikoo kenn ku nekk sa ngay jëfandikoo ko ko ku daj lim daj cib coona loolu mu wax ne liggéey ba mu ko dalee def di joxe euh, boobu doonagul xalifa Alaaji May Si Sekk mu kees xam nga ko moo ma bu jamono bi sëñ bii nekk got a xabaan moo ko daan peeseel gerte ga nee na ma euh, cinquante nangam fàtte naa at ma eggul euh, soixante cinquante nangam na ma peese naa xabaan junniy bërigo junniy ana kan mooy bay junniy bërigo boobu ci réew mi te booba sëñ Modou Moustapha jógee na fi waaye sa booba sëñ Fallou fi ne booba sëñ Fallou fi ne ak doomi sëñ Tuubaa yëpp ñëpp ak ak seex yu mag yi nga xam ni ñoom ñëpp ñu ngi ànd ak yu jeex nekk ci àll bi liggéey waaye xabaan nee na ma peese naa fa junni yi bëriwul xabaan képp te booba got am na booba njàppandal am na booba daal yi ameegul waaye bëreegul waaye got am na njàppandal am na got bi ko sancee mbayum dër moo fa ëppoon solo sëñ Mat Sall mii tey nga xam ne mi ngi dund tey toll ci tëdd ci bilal yàlla na ko yàlla yëkkati ci jàmm moo ma nettali ne buñ ñu ma saan bay ba buñ ñu ba am lu ñor dañ koy récolter lépp def ko ci ay dàmb ko def ko ay collier nu nu nu nu nu yóbbu nu ànd yóbbu moom bokk na ci ñi ko daan andi Touba andi dem dem Thiès wala xombal teg ko ci saxaar teg ko ci saxaar gi andi ko Touba boobu saxaar gi dañ koy dañ koy suuf teg ko ci saxaar gi andi ko Touba mu ñëwee séddale ko njabootu Sëñ Touba gi fi ne nga xam ne nee na ma am na ba bëkk néegub sëriñ Fallou boo xam ne dañu ma dañu ma woon damaa damaa bëgg ngeen dimbale ma nga dimbale ma boobay andeeti di indi lu yem bu jeexee nga ndax li nga fi andi day bari te sëñ Fallou du nangu mu génn te it mënuñu koo saytu day yàqu te bu yàqee mu yeddunu kon nag dimbalee di andi lu yem loo xam ni boo bu jeexee nga mën a andiwaat suñu misaal ma ko nettali te booba kër doomi Sëñ Tuubaa yëpp ba ci kër am satu jaxate la koy te loolu mbayum gor rek la mbayum mbayum norma mbayum norma mbayum norma mbay mbayum nawet ba kon waaw mooy mooy mbayum noor waaw mooy mbayum neer mi mbayum légume mi noonu la ko daan séddalee mbayum nawet mi noonu mm, eh, eh, eh, wax nañu ma ni Serigne Saliou Touré wax na ma ni jamono ya Serigne Fallou santaane toogee te te sas sëriñ sas kilifa yi kenn ko ne mu sas la dara booba ñaar fukki junni fanweeri junni téeméeri junni kilifa lañ ko daan sas nee na Serigne Saliou ñaari million la ko Serigne Fallou sa woon Serigne Saliou Serigne Saliou Touré ma ko wax nee na ñaari million ñaari million ya da koo takk teg moom ba noppi daa di daa daa di soog a nee na gaal gaal la amoon goo xam ne gi dañ ko tëj ñaari xomb def ko lu mel ne kondaane boobu boobu mi ngi mbuur loolu yëgal ko nit ñi nag lu waay indi ñu def ko ca lu waay indi ñu def ko ca lu waay indi ñu def ko ca nee na gaal googee dañ ko caa ba di ay pochette ak kayit këyit ba di ko ba di ko ruuxaat bant ci gaal gu mag te bokk nee na moom bokk na ci ñi ko yóbbu Sëñ mu fam ñaari millions yi jox leen ak gaal gi ak caabi yi nga ne caabi yi sëñ Fallou ko ubbi moom moom ubbiwul gaal gi xamul lu ca ne te ñoom wóor na leen ni li ci nekk ëpp na ñaari yoon ñaar sas wi nee na moom bokk na ci ñi ko yóbbu yet ko Serigne Fallou Serigne Fallou nee na ba mu egg si ba mu eggee moo ko ubbi ak nag yeneen yoo xam ne duñu duñu mën a nettali fi kon Serigne Saliou ku ko ku ko bëgg a xam xam ni al insanul kaamil bi nga wax nit ku mat koo xamante ni kii dara du yitteem lu may defar nit ñi noonu nag la bëggoon ñu mel ni ba nga xamee ni meluñu ne nag mu maandu ca waaw loolu rek mooy mooy wax ji kon nit nga ko nit nga koo xam ni ku ko xool te ko te déglu ko te nangoo déglu ñi nga xam ni ñoom la ñoo ñoo jaar ci loxoom da nga da nga da nga baax da tege ci aw yoon waaye daal ku ko bëgg a li ma bëgg wax mooy ku bëgg a liggéeyal ci jamono jii nu mooy jàngalal sa doom yi diine yar leen yarub diine defar leen képp ku ko def yaa ngi koy liggéeyal dong doon yitteem asalaamaaleykum wa rahmatulah. tabarakallah tabarakallah <laughs> tabarakallah sëñ Abibu jërëjëf. tabarakallah ah, tënk bi de moom moom moom am na solo lool. matale na lépp. macha allah waaw matale na lépp jaaj jaajee na bu baax a baax tamit. jaajee na bu baax a baax jërëjëf. kon ne xanaa ñu njëkkante ak waxtu wi. Mm-hmm. waxtaan wi moom li sëñ Abibu wax rek sëñ Salim moom kenn mënu koo jàngat ci ay weer mm-hmm. wala ay at. Mm-hmm. waxumala nag benn bés wala wenn waxtu. sëñ Abdou Ndiaye kon xanaa yow mi nga xamante ne nii yaa fi teew. mën nañ ne teewal fi dongay tarbiya yëpp ndax jëwriñ nga yoo xamante ne tamit jëwriñ ju ànd ak ndigal ndax sëriñ Cheikh mi nga xamante ne nii moo fi nekkal sëriñ Saliou dañu koy ñaaral fan gudd wu ànd ak wér-gu-yaram mm-hmm. ak mbégte moo xamante ne nii taalibe yëpp am nañ ko ci moom mm-hmm. ndax wutu sëñ Saliou ni ko sëñ Maxtaar waxee ak sëñ mm-hmm. Abibu xam nañ na yombul ndax koo xamante ne nii fukki junni donga ak ñaar nga fi bàyyi ñooñu ku leen donn say dongay bopp ya nga jàmbaar dëgg dëgg la moo mën a yenu loolu mm-hmm. Mm-hmm. waaye yemul nag ci doon leen rek waaye dafa dem nag moom bay yokk mm-hmm. ndax sëñ Cheikh boo demee tey xel koom daara yi fa sëñ Saliou bàyyi woon ma fay tabax yeneen daara yu yees yoo xamante ne nii day fees dell ak mbooloo muy def ci ñoom la sëriñ Saliou Mbacke daan def ci ñoom kon bokk ko kenn ku nekk xam na ne maanaam waagal nañ ko ndax sëñ Saliou sama wayjur mm-hmm. doy na waajtaay mm-hmm. waaye nag liggéey na liggéeyu boppam mm-hmm. sonnal na sëriñ bi ñaqal na sëriñ bi ba am ngërëmal sëñ bi bi sëñ bi ñibbee tamit kenn ku ne xam na ne yoon wa sëñ bi joxeñam rek ca la jaar mhm. taalibe yëpp ñu xel dal na ci moom mhm. ñun ñëpp ñu ngi maasal di ko ñu ngi maasal di ko ñaanal mhm. suñu borom yàggal ko fi tam mottali yéenam sañ Abdou Ndiaye ci tënk yéen ñi nga xamante ne nii kon man nag ne mag ñi muy sëñ Abdou Diop mi nga xamante ne nii ñoom sëriñ bi ñoom la joxoon daaray jàppandal ñuy yar di jàngale euh, daaray got sëñ Maxtaar mi nga xam ne moo nekk daaray njàppanal di yar di jàngale mm-hmm. ñoom la dana waran day def nañ ko ci yéen mm-hmm. yéen ñi nga xamante ne liggéey bi egsi na ci yéen fi mu nekk nii ban jàngat ngeen am ci tolluwaay bi nga xamante ne daara gi toll na ci bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu eh, te di leen siyaar tey feeñal sunu mbégte bu rëy rëy nag eh, ci jataay bi nga xam ne teewe nañ ko Euh, lu baax daa jafe day mel ni boo ko bëggee rek seytaane dina la jéem a gàllankoor lu man ngir nga bañ koo fekke euh, di sant sëñ Moustapha Diop mii nga xam ne moo ñu ko yëgal euh, ma bëggoon a ñëw sama oto amee gàllankoor ma wax ko ko mu ne ma téema yónnee bokk kon loo noo dafay pexe ba ñëw ma ne ko comme li ñuy def ñun ñëpp ko bokk kañ bàyyi rek ma jéem ndax li nga ciy wut lañ ciy wut ñu koy sant bu baax ak jéem gi muy jéem ci saxal turaas bi ñuy sëñ bi bàyyee ak nu ñuy def ba jot jotalee ko ñu ci des loolu sunu warugar la ñun ñii sëñ bi yar beroog ñun def ci ñun ay mbir dem na fi mu war a àggaat mi ngi aju sunu farlu ak sunu xam ak sunu dogu yonent bi alayhi salaatu wasalaam daa ñu ñu bokkal ñu koy wax aali rasul am ñu ko jamonoonteel te gëm ko ñu koy wax sahabatu rasul mu am lu mu def ci ñoom bi mu fi jógee ku ne rakkaaju ku ne seet fa la fa la fa gën a jafe gën a dëgër nga dëgmal ko not sa bakkan fexe ba lam defoon ci ñoom nga def ko ci ñoom moo tax ñu ngi leen di siyaar sëriñ Fahibou ñu ngi lay siyaar sëriñ Mokhtar sëriñ Abibou tey jéggulu jataay bi ma ànd ak yéen toog ci kaw di sëriñ bi ni bul toog ak man ak akbara ak wala boog man ak ahshama ñaar yëpp nag mi ngi ci yéen ndax kii daa jige lool waxuma la magel geeg kilifteef gi mu nekkoon ci ñun waaye sëñ Mat Lamin Jóob Dagana ko ko xam a dëgg yàlla ko gis Abdou Ndiaye toog moom ci jataay dina la jaaxal sëriñ Chouaïb bu mii tamit kiimaan la xam nga sëriñ bi ñu xamut dañuy jàpp ne daa wuti bëkk néeg waaye jëliwutub jàmbor ngir teg ko ci këram kum jër rek am na cosaan lu ko waral sëñ sëñ tuba sëñ sëriwu sëñ tuba la bëgg bëggeel googu mu bëggoon moo tax euh, man de man de ba may ba may ba may nekk ci daara ji ay ay soixante-dix-huit soixante-dix-neuf ña ma gisoon muy ànd ak ñoom ñëpp am na lu leen lëkkale woon ak moom ñoom sañ Mbàkke faa jama ana mooti sëñ Modou Mamoun Niang mii daan na ko lëng ñu bari la daan àndal ci kilifa yooyu moo tax moom mii li ko jigéeloo nag sëriñ bi duy pexeem du dara waaye sëriñ bi xam na la muy def sëñ Maxtaar si euh, moom moom kii man dëgg la ndax xam nga li li ma maqaama wax ni ñaari yi ayib la ci wax mooy mooy xam loo mënta leeral wala xam loo xam ne sa làmmiñ am na jafe-jafe ci leeral ko tibiyaan ak bayaan leeru xol ak leeral ko ci lamiñ ñaar yëpp daje daje na ci moom ñu ngi sant suñu kilifa yii nag nga xam ne ñu ngi fi tudd nga seen tur waaye rafetlu nañ seenu teewaat sëñ sëñ sëñ am sat si la mi ak sëñ minikat waaye sëriñ sëriñ sëriñ abibu damaa gis addis boo xam ne Abu moo ko soxo moo ko soloo lim ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam dani man kazaba alayya mutaammidan koo xam ne fenal na ma maanaam waxal nga ma lu ma waxut wala nga seere ci jataay boo xam ne nee nga am na ci man te amut falyata ba wa maqaduhu min an naar faa googu nag yéen ñiy jàngale naax xam ngeen ne fasihatul kalaam la mooy bu lii amee rek boo yeboo nga xam ne daal daa li ciy daal di topp mooy lii daa xew nag daa xew te te ñun dañoo jige lool koo xam ne da nga ne nekkoon nga ci daara ji suñ bee ma yar boo taxawee wax lu juuyoog li am rek musiba dëgg la loolu dafa rëy lool wa man aslam meneftare alallahi kasiban alxuraan dañu ku gën a ku gën a mën a dóor gën a mën a kàcc kii waxal yàlla lu mu waxut waxal yàlla mooy ndax yàlla du du du du du arab du jërmiyan waaye li ñu jubla wax rek mooy yonent bi yi nga xam ne moom la teg suñ kanam ni nit a ngi nii goo xam ne ci yéen laa ko tànnal lu mu wax maa ko wax lu mu tere maa ko tere kooku ku ni moo ne nangam lu amut kooku amut lu mën a dox digganteem ak sawara dafa am loo xam nag dama ko bind da waxi sëñ Saliou la yoo xam ne dama dama yaakaar danañu itteel ñun ñëpp dangaa wax wax ju wax ju wax ju doy waar ci yar ci ci kii ndax dane am na ci barab yi barab yu dongo yi ñoo xam ne dañ fa daan nekk duñ jàng duñ def dara waaye da ngay jékki-jékki rek mujj gis leen ñu baax moom moom wax na ko ci biir xam maanaam waxam yëpp dëgg la waaye nag nit booy wax da ngay da li nga ci mën a wax rek xam nga sëñ Saliou daa am bis boo xam ne da doon yeewi mbooloo moo baree bari lam ca waxoon nag daa doon wax ju itteel joo xam ne dañ koy wax bañ xam mbir yi ni muy demee ak ni muy demee ndax dani sëriñ Saliou moom moo nettali ni sëñ Touba dafa mosa woo sëñ Modou Moustapha ak sëriñ Fallou biñ ñëwee bay dellu mën leen dama dama bëgg ngeen liggéeyal ma ci nit ñi ni leen bu ngeen demee Touba da ngeen sanc ay daara te liggéey liggéey te ngeen liggéeyal ma ci nit ñi ni yen ñi ma jur li ma leen liggéeyloo mooy ci mooy ci nit ñi kon digal na leen san sanc daara digal na ci nett li bi tamit ni moo leen liggéeyloo ci nit ñi moo tax comme sëriñ bi ni nga waxee ne daa teel a samp daara ak li nga xam ne ku wax daara sa xel nekk ci moom wax dëgg yàlla loolu asli yan moom da koo nekk ci bi muy bi muy bi muy bi muy bi muy bi muy bi muy yeewee kon daa mel ni nit nit nit pexe bu nit mën a am jàpp naa ni mënoo am pexe bu gën a rëy teg ko ci yoon. yoon wi nga wax yoon wu leer la nit bu jàngee yaru nangoo liggéey amuk ràññee fa dem mën a jaxasoo ñooñu jàpp naa ko de damaa mos ak sëriñ bi mu ne ma yii moom lu waaye nit gàtt gàttum xel war nga koy bàyyi xel mooy nga xam sa bopp awalan nga xam yow yaay kan xam li nga man xam li nga lot xam li nga mënut koy jëflanteel tamit nga xam ni mu la jàppe ñaari yu moom boo xamee rek dinga am yoon woo mën a dem bu leen nit ki jàppee dof di nga dem bu la jàppee ku ku baax di nga mën dem bu la jàppee kàccoor tamit di nga mën a dem parce que yow xam nga sa bopp ba noppi li ci des nag mooy koy jëflanteel rek fexeel ba xam loo mën a doon léegi nag comme sëñ bi war nañu ginnaaw ñii ñu jàngal magal nañ ba ku ne yaa ngi toog fi nga war a toog am na ci ñun ñi yaroon ñoo xam ne ñu ngi tollu ci digg doole kër gi lépp ñun la war lu ci yàqu ñun ñii ñooy responsabilité bi am na lu ñu war ci sëriñ bi am na lu ñu war ci ñun suñu bopp am na lu ñu war ci mag ñi ñu yaroon am na ñu ñu war tamit ci ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci roon ngeen ndax xañ na jaxasoo gi am suñu diggante ñoom li ci ëpp li ci ëpp du faral di di di di war ci ñun man de sëñ bi maa ngi fàttaliku ne tàng ne sama kaw benn yoon tàng mu metti nag xañ na sëñ Moussa Diop dana ko wax xam nga sahaaba yi liñ liñ liñ tanee woon dañ daan indi ni yonente bi da gërëmoon nañu ci lii waaye boo ma defee nangam bi si itam sëñ bi defoon na ma lii wax dëgg yàlla nag sëñ bi xam nga yéen ñëpp xam ngeen ni meloon mooy mbir yi moo ko yoroon boppam biñ nekkee ndokaa da daan def ko bàyyi daal bàyyi jàng alxuraan sax laay wax xam nga mi ngi dëkkoon boo duggee ci kees kees bu njëkk gi néeg néeg yooyu sëñ Sam mujjoon a dëkk muy ñetti bâtiment yooyu daa dëkkoon ci bi ci digg bi ak ba féetee ba féetee sowu bu nekkee ci ci digg bi booy dugg ci keesu juróom benn koñ gi daf lay gis bi ñiñ na ko bàyyi nañ jàng alxuraan ñëpp da koy bind te boobu sëñ bi guddi gi day am waxtaan ak yow boo ñëwee nga toll da koy saytu ëllëg ma laajaat la ko léegi-léeg nga yam fi mu laaj la sam njàng lu teem a dox koy gëstu yow sa bopp nay njëkk yedd waxtaan ak yow ñun ni ko bàyyi nañ jàng alxuraan ñëpp daa bind seeni tur téye bi ñëwee di woo par kenn boo ñëwee mu laaj la dañ ne man da bàyyi jàng alxuraan lu tax nga tàmbalee lay mën la ko ko gàntu la njëkk doo nangu la ci topp noppee dalay lay woo yeddaat la tegaat la ci yoon wi mu la war a teg li ma jubloo nett mooy sëñ bi dama dañ maa woo benn fajar ni ma wuyul ma jàpp ni ma daan bësi ni ma ko daan bësi di waxtaan moom loolu la ma ñëwee sëñ bi nett li ma ta jafe-jafe yu ma def fekk njëkkoon na ak gàmm gum ñëw fii Touba ñuy gàmm mu woo sama benn xarit dal ci kawam xam naa wax na ko ni sëñ Abdou Abdou Abdou Ndiaye moomu am na lu mu def loo xam ne naa ko lijjanti bi mu ñëwee wax ma ko may jàng tàmbalee absenté di xalaat bu ma demee sëñ bi lan laa war a lay ba mu ba ma waaye ma dem ba fajar sëñ bi woo ma ni ma dañ ma ni yow da ngay def nangam ak nangam nangam ci daara ji ma ma tàmbalee weddi waaye sëñ bi fi muy jaar a kawe dani man ne bañ ma ko waxee góoma ko ndax ni nga yaroo ak sa baay ni mu téel a jibbuloo ci man biñ ne yaay def nangam góoma ko jaar ma fa kawe foo xam ni maa ngi yàkkamte wax ji wax ji jeex rek ba ma génn ci ni ma ay bu lu mën a am bu la ci diggaat moo tax ndoogaa goog bi mu ma waatee ni ma <laughs> dégg naa yaa def nangam ak nangam ma ma ma tàmbalee weddi mu ne ma nag maa ngi lay bu dee bu dee lii ma ne dama ah, la tax mu tàng mooy dama ne ko ñi fi nekk dañ ma ñiiñi moo tax moo tax bu ma sañoon nga bàyyi ma ma taxu daaray nangam sëñ Saliou laa lay waxtal de sëñ bi daa tuddoon way daa jóg ni ma ñii ma teg ci daara ji daara ji ne maa war a nekk waaye dañ maa doy doy goo xam ne day mel ni ma mënti séddaliku waaye kon sama jëmmay séddaliku kon nag ku mëni wut ak ñoom doo mën ak man loolu laa jubloo wax ne kon ba nëga ni jàpp naa ni dara ji jooju dara ji yooyu yéen yéen gëm naa ni loola ba tey jii loolaa nga ci yéen kon war ma jooju war nañ koy sàmm ci yéen di di gàññi ñu àndal di gindi xale yi ci bëggu sëriñ bi xam ni li ñuy wax ak li ñuy def pour nit ñi jàpp ñu dara loolu du dara ndax usul yéene dañuy nettali ni addis jékkuñu jékk tagg ni rek Abdou Ndiaye nee na sëñ bi nee na déedéet dañuy xool man mi wax ba xam lu ne ci man ba xam jag naa wala déet ki ma ni moo ma wax ba xam am na yeneen jikko yu jaarul yoon yi ay bu fekkee yow xame nañ la jaar yoon ki nga li xame nañ koog jub ak koog maandu ku mel ni sëñ Abibu mii ak nangam bu nee nangam sëñ bee ko wax kenn du ko dindi moo tax daal santaat nañ sëriñ bi tey ñaan yi di gën a law te gën a takku ci li ñu sëñ bi bàyyee lépp a ngi fastamsik bi lasi oohiya ilayk lépp luy njariñ mi ngi ci kër gi bu fekkee ñu ngi jàppoon li ñu sëñ bi yare woon jàpp ci di dem man de xam naa ni maa ngi fàttaliku daam ngay di ma wax ni ma boo xoolee sëñ bi jamono bi mu ñuy joxe yére tergal yam ñu joxoon ca jamono boobee mooy jas neer ci jamono bi ñu toll bu daan ñëw ci daar ñun ñëpp xam nañ ni pomme yam ñu daan jox ak orange yooyu original yi lay doon yoo xam ni ba tey mosuñu koo gis man de woo na ma benn bis ma ñëw mu yabal ma ci booli boo xam ne mis yu am xar la ci def ako man képp mu yabal ma miinal nga dong yi xéewal ak teraanga fi yow te wàccaguñ mbàkke buñ tàggoog teraanga neen gis nga nit pour mu do pour pour mu mën a pour pour nga mën a gindi nit ñi foog nga nuru nit yéen ñii moom mën man di ngeen mën a nit ñi waaye ak lu mën a nekk ci yow mii boo solo ni sagar salla boo jë boo sëñ bi la ñuy xase ci yow moo tax am na ko ne ma day yéen seenu solo rafet ak cant la du tiitaru du rëbb àddina ndax ndax ndax ndax ndax siimewum fiu joo min asiri sujjóot bokk du yorofal mu jërmoon bi siimahum ndax ku ne nag boo gisee màndargaam di nga xam ne lëfa nga ci moom moo tax sol gi lu set ak dëkk gi fu baax ak yor oto bu baax ak sant la de waaye ku jàpp ni dëdd mooy dof dof lu gi loolu loolu du ni nañu nañuy jub te mel nañ war a mel te xam ne xéewal gi su suñu xéewal la lépp luñ mën ci di ko di ci dimbalante suñu biir itam nañ ciy bàyyi xel dëgg yàlla yàlla defal nañu mbooloo moo xamante ni ci lépp luñ bëgg mën nañ ko def damaa gis mbooloo mu yaatu moo xam ne dañ ma ni ren dajale nañ quarante et quelques millions ma laaj leen nu ngeen ko dajalee ñu ne ma 1000 francs la ñuy sasoo par weer dajale ji lu toll noonu damaa jàpp nag ñun dong yeeg soppe yi war nañoo toll ci taxawal loo xamante ni si danañ noppal sëriñ si noppal suñ bopp noppal suñ rakk yi ba ëllëg ku ñëwaat di xam yoonu ngay jaar asalaamaaleykum wa rahmatullah ah, tabaarakallah tabaarakallah tabaarakallah jërëjëf Sëñ Abdou Ndiaye jërëjëf wax ji waxtaan wi am na solo lool ñu ngi lay ndokkeel te di la masawu coono yi ci yoon wi yëpp mm-hmm. waaye xam na liggéey sa liggéey bi sa liggéey day mel ne suñu jotaay suñu jotaay daaw ba bi bi mu jàllee mm-hmm. sëñ Muntaxa da cee sëñ Cheikh da cee bëgg sëñ Cheikhum sëñ Saliou mhm. sëñ Muntaxa tamit bëgg ci lool ba am ba am na ay liggéey yu muy def nii yoo xam ne sax ci waxtaan woowee la jógee la jógee lu mel ni cent vingt mètres beeg yooyu yëpp deset na koo leer sëñ Bass Abdou Khadre ba mu ko déggee waxtaan moom tamit mu neex ci moom mu leeral ko sëñ Muntaxa ba liggéey yàqali dëkk beeg soññebaat bi yëpp ci la jëkkoon ba nañ ñaanal sëñ Muntaxa rek uh-huh. yàlla may ko mm-hmm. sago mm-hmm. tey mottali ay yéeram waaye mm-hmm. mi ngi mi ngi taxaw ca tànkee sëñ Saliou jaaroon mi ngi ciy jaar moom tamit ngir ngir ngir dundal dëkk bi na liggéey bu sëñ bi def waaye lu ñu a jëmmal la waaw ndax booy xool sëñ bu tedd bi sëñ Touba bi muy ñëw fii ci réew mi maanaam bu réew mi amee tur yu baax dëkk yi am tur yu baax mhm. loolu sëñ Tuubaa moo ko fi indi mhm. fekkoon na fi diine lislaam mhm. fekkoon na fi ñuy jàngal xuraan waaye nag dëkk kër Makka la kër diw kër diw kër diw waaye nag daaru salaam daaru rahman daarul moxti daarul xuddus daaru salaam tur yooyu moom sëñ Tuubaa ko fi indi fekkoon na tamit ay tur yu baax ci réew waaye Abdul Ahad Abdul Xaadir Abdul Xaadir li muy bëri bëri Abdul Xaadir si waaye Abdul Lahat Abdul Xaadir mm. Mouhamadul Cheikh euh, Mouhamadul Bachir waaw Mouhamadul Muntaqa tamit sëñ Tuubaa sëñ tamit noonu la def dëkk bi mm-hmm. booy xool quartier yi mu mujjee lotissé ok koy rax rek sëñ Bas sëñ ko danaa dagale sax liste bi indil la ko mm-hmm. naa ko Tuubaa toll na ci quartier yi ni ko sëñ bi tudde woon mm-hmm. ñu wax mairie bi mhm. ñu defar ay table indiwaat quartier yooyu ok ndax quartier yi mu mujjëlu si tey yëpp tur yu tedd la ko tudde mhm. te ba léegi nii tur yooyee mhm. day mel ni fi mu nekk nii dafa mëdd waaw toll na ci sëñ bi dégg ko jox ndigal waa mairie bi mhm. ñu def ay tableau quartier mhm. yi ni mu tuddoon waaw sëñ bi tudde ko noonu sëñ bi indi woon ay tur mhm. noonu sëñ bi ne noonu mu def xel koom waaw kay ci tur yu rafet quartier yu mujjee natt yëpp tamit noonu la ko def ci ay tur yu rafet xam naa kon daal ñu tëj te sant sëñ Moustapha Diop nañ ñu ngi lay sant bu baax ndax jataay bi daaw yaa ko waraloon yaa ko woote woon soññe ji ren tamit naka noonu mm-hmm. yaa ko woote waat soññ ci mm-hmm. ànd ko suñu magi taalibe yu baax yi mm-hmm. di suñu ay jëwriñ di suñu ay sëriñ di suñu ay lépp li nga wax tamit ne buñ bala ñuy dem nañ toog ba xéewlu door a dem loolu kon maa jot li naa ko ci jotaay bi sëñ Moustapha nee na am na ay xéewal yu mu waajalan ngir bés bi nañ toog ba xéewlu ko door a dem newoon na ma tamit xéewal yooyu nag ñi nga xamante ni ñoo ko fàggu naa leen sant nee na ñetti nit ñoo ko fàggu kenn ki mooy Samuel Ahmed Sarr kenn ku ne Samuel Amé Sarr xam na lim doon ci sëñ Saliou xam na mhm. lim doon ci donge yi mhm. kenn ki di Moustapha Kébé moom Alaaji Babacar Kébé du njuga mhm. kenn ku ne xam na lim doon ci sëñ Saliou xam na lim doon ci donge yi kenn ki tamit di Moustapha Seck moom Alaaji Moustapha Seck ndax ñooñu ma lim ñëpp kenn ku ne am na doom joo xam ne sëñ Saliou nga ko tudde kenn ku ne tamit am nga wëllëre woo am ak sëriñ barakaatu.